man ay yére laa jaay ay short ay t-shirt ma xool lu rafet quoi mu ñëw teg ko ci marché bi samp ko jéem nga jaay. par rapport ak euh, événement bi moom wax dëgg fa yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax comme euh, ni ñu leen ko expliqué rek am na article yu bari yoo xamante ni moom mën naa la ne dafa manqué ci marché bi lu ci mel ni ay lafaya yooyu noonu ndax. actuellement nii moom gars yi moom moom lañu jël ci événement yi Lafaya ak euh, jippir yi yooyu actuellement nii mën naa la ne dafa manqué ak ak lu ci mel ne ay dara aussi dara 10 pièces ak 8 euh, pièces ah façon boobu yëpp aussi dafa manqué actuellement nii. man de wax dëgg yàlla boo xoolee ci daaw moom séerut ci man ren ndax daaw daanaka ñu ngi ko doon jënd ay 15000 ay 14000 nangam ba mil sax ren nag wax dëgg yàlla ay 6500 6000 7000 foofu la tollagun pomme de terre moom it. gën gaa seer daanaka onze mille wala douze mille cinq cent wala douze mille. waaw non tawfeex parce que Sénégal moom lii lañ yàgg a baaxoo ah parce que effectivement moom heure bu jotee rek mbir yi day yokk loolu moom kenn mënu ci dara mais ñi ngi ñaan yàlla gouvernement bu bees bi ak euh, tamit résime bu bees bi mu mu wàññi lépp ba lépp li nga xamante ne nii nit ñi war nañ koo jëfandikoo mu yemb ci ñoom ci daraje Seydina Mohamed. gars yi ñuy jaay bëri nañ mais ku nekk boo xëyee la ngay dem marché nga xool li la gën a neex nga nekk si peut-être am na ñoo xam ne dañuy ñëw xool pour ay short ñeneen ñi dàll mais man moom di laa jaay ay short affaire yooyu waaw ñu ngi ciy gis suñu bopp moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax moom mais clients yi waaw ñu ngi ñëw de ñu ngi ci ñu ngi ñëw de ñu daan ñëwee moom comme auparavant mais ren moom li nga xamante moom mooy doxul mooy lu ci mel ni mbasin ya ah, par rapport ak auparavant mais yeneen tissus yi moom moom moo ko nëbb ndax mën naa la ne jigéen dañuy daan jënd ay mbasin ak yooyu noonu mais ren jigéen yëpp presque ay fini tissu yi nga xam ne moom moo xew léegi comme ay lafaya ay jippir yooyu noonu façon yooyu noonu lañ jënd ak yi nga xam ne mooy askage bi façon boobu daal lañ jënd moom mën naa la ne moom lañ gën a jënd ren moo tax mbasin bi moom doxul ren mais yeneen tissu yi moom mu ngi dox moom ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax moom ñu ngi cee gis suñu bopp. non a gën moom waaw waaw maa ngi gis sama bopp mais mën nga xëy mu dëgër mën nga xëy tamit mu leer. waaw euh, maa ngi ciy gis sama bopp mais am na ñoo xamante ne peut-être gisuñu seen bopp parce que nit ki mën ngaa am njëg keneen mën naa bañ a am njëg parce que àdduna moom toujours rek noonu lay doxee quoi peut-être seen daal a ngi nii marché baa ngi nii yaa ma gën a xam daal.